salaamaaleykum mbokk internet euh, Farokh TV ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara euh, ñu ñëw fii nga xam ne mooy Daaru Salaam ñu ñëw ci jumaa ji ñi nga xamante ni ñu fekk fi benn association boo xamante ni mooy ànd taxawu gàmmu gi nekk association bu mag di liggéeyal Cheikh Sidi Ndaw fii ci Daaru Salaam di ko liggéeyal liggéey bu am solo fii nga xamne ñom ñoo seere walu gamu gi walu euh, jumaa ji lépp lu ci aaju ci teral gan yeek tatagu wan len fiñu wara jaar ak euh, niñu wara def ba dugg ci jumaa ji siyaar génn ñoo yor walu woowu ñu ñew si président bi nak euh, pour waxtaan ak lool si alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah. señ bi ñu ngi lay nuyu di la siar ñu ngi lay fay. señ bi nak nga tuddu man Amad Ba. Amad Ba yaangi joge fan. man de fi la dekk waaw dama gàmmu si fi laa dëkk jóge ko ma fenn si dëkk bi laa dëkk. dëgg la macha allah si dëkk bi nga dëkk macha allah gis nañ seen liggéey bi ngeen di taxawee chaque euh, année muy euh, ànd taxawu gàmmu gi gis nañ ni ngeen ci mel ràññee nañ leen ci lool ci gàmmu gi ñu leen di laaj seen liggéey bi euh, nan la demee ak nu ngeen koy taxawoo. wa gannaaw bañ sant yàlla ñu ngi lay nuyu di la siyaare waaw daayira bi mu ngi tudd groupe ànd taxawu gàmmu jegul ba mu ngi tudd groupe ànd taxawu gàmmu waaw daayira bi moom amul frontière si dëkk bi maam ñu ngi si lu nekk waaw moom moom dañu yaatal rek lépp loo gis ne daal war nañ koo mën a liggéey ñu ngi si luy doxal dëkk bi rek si la ñu nekk waaw luy taaral dëkk bi ak si luy doxal dëkk bi si lañ nekk waaw ñun loolu mooy suñ taxawaay luñ gis ne daal sawaay war nañ saa mën a yëngu rek ñu ngi sa waaw yemuñu fenn daal. macha allah yéen léegi euh, kañ ngeen commencé liggéey bi depuis gàmm gi bi mu commencé ak léegi ban jour ngeen commencé liggéey bi afan gàmm gi ban jour ñaata fan ngeen commencé liggéey bi ñu door a gàmm tey. waaw ñun nag si dëkk bi leen dëkk waaye nekkuñu fi waaye bu desee quatre jours dañuy faral di ñëw pour nekk si liggéey bi waaw parce que boo amee ay gan ñu war a ñëw da nga leen a gàttandu ñëw defar li nga war a def defar yëpp toog di leen xaar. waaw bi mu desee trois jours daal ñëw nañ. lépp loo xamante ni set setal la def nañ ko waaw di xalaat noo xamante ni daal nu mu gën a rafetee rek ñu ngi si waaw. macha allah léegi yéen seen liggéey si jumaa ji maanaam ci jumaa ji seen liggéey si biir jumaa ji li ci ëpp solo lan la. waaw liggéey bi si biir jumaa ji dañoo ne si jumaa ji waaye nag ñu si biir dëkk bi fépp waaw équipe bi maanaam si jumaa ji la ne waaye dafa yaatal waaye li ci ëpp solo mooy duus yi nii duus yi daal. parce que dëkk bi tollu woon na foo xamante nii yaakaar naa ne ay fukkat ci si bo fi ñëwaan ci jumaa ji pour nga japp problème lay doon parce que ben robino fi nekkon do fi gi sax sata la duusi sax dëng ka daan tej maam xel xalatul won jumaay daru salam nga ñëw fi gamu wala siaré pour japp fi wala nga dugg si duusi lool xel xalaatu ko woon parce que melokan bi mu doon mel waaw waye biñ biñ yalla dogalé bañ dox ba yegg si fi ben gudi gudi gamu gis ne fii dal ni mel doyna war lol ci gam gog non ci lañ commencé di taxaw juma dar salam di dugg ci kër yi di ab ay dañ doon dugg di ab ay satala la ben robina fi nek wa ay porte Sadio Ndatt lu ne wut nañ ko dik indi wa ba ma sha allah fi nek ni mo wax yu doyna ñu ngi si and ak ko xamni jalal ndaw la taxawayam ci wah bi rafet na lool waaw luñu soxla dal ñun luñu soxla jalal taxaw na si lu luñ ko wax rek mu ngi si waaw bërigo yi ngay gis nii yëpp si moom la fi mu ne ni daal ñu problème ndox duus si bari na yokk na maanaam daal chaque année daal muy gën a yokk rek waaw chaque année muy gën a gën a gën a gën a yokk si loolu weesoo it nekkuñu si jumaa ji rek yem si maam gan ñi war a ñëw lu mel ni gendarme yi lu mel ni waa sapor yi lu mel ni waa service d'hygiène ñooñ ñëpp daal fépp foo xamante ni fa lañ war a nekk ñoom maam bala ñoo ñëw dañ fekk daayira bi defar ko lépp taxaw di leen xaar waaw lepp lo xam ne soxla nañ ko tamit daayira bi na ci taxaw maam daal seen matuway yep luñ soxla seen jumtuway yep daal daayira bi taxaw na ci waaw daayira bi daal so lay yëngu. sha allah tay buñ doon laccé tay daayira bi euh, lan la manké ci seen walu jumtuka yi ngeen di liggé lan ngeen manké tay waaw maam comme ni mala ko waxé rek commencement bi metti won na waye tay mom alhamdullilah ma walu liggé biñu liggé fim nek ni fiñ fiñ fi parce que. dama mos a dégg Khalifa Bassir mu wax benn wax bu am solo mu waxoon ko daayira bi ahlul muhabba ñun ñu ngi commencé woon si jamonoy El Hadj Mountakha xalifa mun Mountakha ñun boobu lañ fi nekkoon di nekk fa ñuy siyaaree Khalifa Mountakha booba yaakaar naa man maa fi nekkoon ak benn sama xarit bu ñuy wax El Hadj moom mu nga Europe Europe sax yaakaar naa bitim réew. maam ñoo fi nekkoon dañ fa mos ñëw gis daal xalifa Muntaxa ni nit ñi daanoo si kawam. booba fu neex waaye rek romb dugg yi du ñëw police du ñëw amul kenn ku fa daan ñëw maam daal bunt bi daal fu mu neex waaye ñëwee yàlla dogal ñu nekk si si loolu man ak sama waajur may jàppale. moo waral tey ñu naan lépp fii ngay duggee fii ngay génnee moom la fi gars di def waaw biñ demee ba nga xamante ne am na daayira bu sosu mu tudd Ahlul Muhabba ma bayi len fofu man ci daayira bi la bok parce que ko sos ci la bok maam budé ñaari nit ko sos may ñaareel bi bu nit may ñettel ba maam suñu ko sos ci la ci la bok waaw. bi daayira bi taxawé liggéey bo gis da ngay ñaan yalla ak yokkuteem kon loolu yokkute la parce que dama soxla won mbolo parce que limu mu doon def man kenn mënu mako won mbolo rek moko mënon légui bi daayira bi ñëw ñu bayi len fofu fiñu ñuy siyaare alaaj Muntaxa ñi ngi ñëw ci khalifa Basir ci la daayira bi soso daayira Ahlul Mab mu ngi sosoo si xalifa Basir boobu jamono yi Alaaji Muntaxa daayira bi sosoogut si jamonoy xalifa Basir biñ ñëwee si laa leen bàyyi man fi ñuy siyaaree foofu noonu jóge ko fa ànd ak ñim quelques personnes yi mën a àndal muy ñoom Mansoor ak ñi nekk nii ñu ñëw si mbaar mi commencé di décorer kon def nañ benn jéego fa xalifa Muntaxa nekkoon fa lañ nekkoon jóge ko fa ñëw si mbaar mi waaw di ko tànt muy rafet lool nit ñi di ko di kontaan boobu bant lañ daan gàmmoo. bu déssé 5 jours wala semaine lañu ñëw di gas di samp lu rafet lu né samay samay rédé du kër sax man dama ko daan indi di ko tànk si tànt Seex Salaaju mo ndaw ma man gamu la daan daanu bu gamu jotan lu mu daan yor ci xaj yëpp ci la daan yem drapeau vert son dou ci ñi def ci daayira ci tante Seex Salaaju mo ndaw ak yenen tante yi am parcelle ak yoy yëpp couleur vert blanc ma ko fi ñëk sos fi ci daru salam ma ko fi sos ben terre bu nekkoon mbuur momako ma doon defaral maam booba xaalis kenn dama su maa daan jël sama xaalis jënd samay popeline ñaw ko indi ko di ko takk si tànt bi di jël samay rideau di ko indi di ko takk si tànt bi tante bi daan rafet lool macha allah nit ñi foo dégg di ko di ko ko coow ñu dox si jéego yu am solo ba daayiru Ahlul Muhabba tamit dooleem gën a yokk ma bàyyiwaat leen si mbaar mi moo waral ma ne la jumaa ji bi ma fiy ñëw booba kenn nekkul si jumaa ji booba satal amul si jumaa ji booba benn robinet moo fi nekkoon di dox ñaari duus fi nekkoon daraan fat booba duus yooyu noonu maam kenn xalaatut yow gàmmu jot nga ñëw fii si duus yi déedéet loolu amul woon bi ma bàyyee daay daayiru Ahlul Maba ba ñu continuer ñoom it def naa première jogo bàyyi leen fa def deuxième jogo bàyyi leen fa ma dégg xalifa Basir bi ñëwee ba si jumaa ji mu kontaan si lool mu ne daayira bi ne ni muy doxee neex na ko ni muy doxee mooy lan daayira bi teg na ña ñetti jéego maam teg na ña ñetti tànk jooy ko na fa muy nekk ñëw na si tànt bi ba ñëpp kontaan ba tey tante bi macha allah tey tante bi moom tante sa salaa ju moon daw maam macha allah fi mu nekk nii. kon bu jee ko foofu ñëw si jumaa ji taxaw fi taxawaay bu rafet bi loolooy troisième jéego maa fi mu ne nii nag romb nañ ñun troisième jéego ñu ngi si quatrième jéego ñun yematuñ si jumaa ji rek boo doxee si dëkk bi di nga gis ay bërigo yu ñu teg si dëkk bi maam nit nekk. nga soxla ndox boo soxlaa soo wootee daayira bi dinañ ñëw indi la fa ndox waaw maam daal taxawaay bi ñu taxaw daal mooy Daaru Salaam yokkute si kanam rek waaw léegi ñu ngi fi gendarme yi pour bu ñëwee fañ war a dal ñoo leen koy lijjantil sapeur yi fañ war a dal ñoo koy toppatoo maam daal dëkk bi daal ñu ngi si xolu dëkk bi daal ak ak laafu dëkk yi fépp foo yaakaar rek waaw daayira bi fi nek ni toll fi nee ni ñu ngi suñu djego jéego ñaan yalla ak ak yokkate ne di xolaat leneen lo xamanteni maam daal ñun nañ liggey tay fi si jumaa ji su fi yeneen bolo ñewon ñu bayyi leen fi demaat créer waat leneen parce que liñ créer yépp maam amut len lo xamanteni ni lu ci nit di ñaawlu la lu rafet rek nee la jamono khalifa muntaha lawon man kenn fa nekkon sama ben xarit ñew jappale ma mot lamine daw mom boole ak daayira bi sosuma bàyyi ko fa ñëw si tànt bi tant balaa jooma ndaw buñ demee buñ demee ba di ko coow bokk naa si ñi ko taxaw lu ne def def naa ko si parce que décoration boo gis lijjanti naa ko am na décoration bu mu doonut boo xamante ni maa ngi doxee poste caaro yi dama dox ba pompier parce que xaw ma fan lañ ko doon jaayee mooy ñu doon lëma si poto poto bant yi di dox di dox di ko wër di dox di ko wër ba. pompier gis ko ma jilat auto pour pour pour pour ñew mbuur bi ma ñëwee ba ba jam ñaajo non non ba euh, euh, sipsi oto bi ma dugg si laay doog sen seen la mu doon wër sen ko ci ci ci auto mané kon na baye ba dem ba ñewat sa su bëgg ma jilat auto ñew doog jëndaru indi ko ci tante daaru salam bi may ñëw fii ay pot la fi ñëk indi ay pot manke jëlé grande mosquée bu nek Mbour benn gardien bu nekk moom moo ma ko jaay avant ñuy indi ay sasat la 60 pot xaw ma 50 pot laa fa jënd yeb ko si oto indi ko fii pot yooyu noonu moom lay fi njëkk di jàppee ba tey pot yooyu waxatuñ ko fi mu nekk nii sasat la ñu si soxla rek maam yàlla dogal na ñu am ko kon loolu yëpp waaw macha allah kon loolu yëpp daal ak yokk ak yokkate la wax goo xamante ni daal sant yàlla dañ doon luye ji ay bërigo léegi luyeetuñ bërigo léegi lépp mat na waaw affaire bi sa kaw si kanam amut lenn lo xamanteni ñu ko ci reey reccu te yit nak dañ fi dekk bokk ci maam li nga bokk no meuna a mu rafet rek dang ko wara taxawé parce que dang sé see maam lolé sa fekk rek muy muy muy lol amut lenn nag lo si sentu lo xamanteni ni tax nga nek si li nga nek dang sé bok maam war sé taxaway taxaway bo xamanteni parce que lo bokk nit ñi dafa ñew kon da nga ci war a taxawaay taxawaay bu rafet maanaam daal daare daayira bi noonu lay doxee ma kontaan nag si groupe bi ma àndal ñëpp fi nekk nii daanaka liggéeyu yu yooyu yëpp maam daanaka wàcc naa ko maam dama naan leen def leen rek ñu ngi def lu ma leen wax si loolu lañ nekk. waaw groupe bi sawar lool macha allah di génn seen xaalis di si def di def seen ñaq di si di si def lu mu wax loolu lañ wax waaw amul leen dool loo xamante ni daal sëñ bi. fecc nañ ko si incha allah macha allah macha allah leeral yi am na solo trop wax dëgg yàlla gis nañ ni ñuy ni ngay ni sonnee fii nii si jumaa ji di fi am jéego yoom solo te li nga fi leeral nii yëpp euh, bëri na ñu ko xamul woon euh, kon yàgg euh, mën nañu xam ne Daaru Salaam yow fi nga dëkk te doo fi gan te yàgg nga fee taxawal lu ko jagal te yi nga fi taxawal yëpp société yoo yàlla def na réussir na ba ñëpp xam ko te ña ko jiite woon ci say loxo la bokkoon. ba legui yaangi bayiwo yaangi def yenen stratégie di gëna yaatal di gëna doxal dëkk bi di gëna jëmele dëkk bi ci kanam kon ma sha allah ñu ngi ci contane sëriñ bi mo la ci gëna contane ndax euh, ci wax ji lu defar dëkk bi rek la bëgg lu jagal dëkk bi lu taral dëkk bi la bëgg kon manam ñëpp contane nañ sha allah kon dal legui lu ñuy wax moy loy wax te seen bi nga xamne ne Farokh TV euh, lan nga koy wax. waw maam di len ñaanal rek ngeen dem ba nek comme télé yéen nit yéen ngi dox seen jéego yu rafet parce que feñal liguey cheikh Salaaju moo ndaw loolu mom moom maam kusi si nekk rek yokkate la lay ñaanal ngeen dem ba bok si télé yi ñuy tuddu waaw télé yi ñu tudd yëpp amul ben nak bo xamanteni ni dal ci si kaw ci kanam dal yal na leen yalla gëna yëkëti waaw lolou dal la leen di ñaanal faro TV sa kanam Lol yag na ko ñaanal sama rak alu dem <laughs> waaw momit taxawayam rafet na lol si dëkk bi parce que ñi ñëk feñal feeñal mamam fi ci si dëkk bi ci la bok waaw kon boog sa kaw sa kanam Farokh TV waaw alhamdulilah allah macha allah kon jere ngeen jëf euh, wa faro TV kon ñu ngi ñëwoon fofu nonu ci and taxawu gamu gi muy association bu mag bo nga xamanteni mo nekk ci daru salam di taxawu gamu gi ci liggey bu am solo ñu dal ci doon am suñ president bi president bi nga xamne moy president and taxawu gamu gi mom lañ doon waxtaanal non gis nga kaddu yim leeral kaddu yu am solo muy amat euh, machallah kon ñu ngi sante di gërem di len wax ne dinañ wat ci yenen jotaay jere ngeen jëf mbokk internet yi jere ngeen